Uh, waxtaan bi kum fanweeru ministre ak ñeent moom la njiiti réew mi Macky Sall tabbu niki démb allah Le Soleil yéen a kaay ñu ko xamal juróom-ñaari ministre Macky fale na kajj football daq ak ñetti ministre yu bees dugg nañ ci gouvernement bi Vox Populi ne fanweeri jëwrin ak juróom-ñeent moo nekkoon ci gouvernement bu njëkk bi waaye bu bees bii fa wàññeeku fanweer la ak ñeent enquête yéen a kaay na leen li ci gën a fës nag mooy ne Makhtar Cissé moom la njiit réew Macky Sall dénk jëwrin ju ñu dénk wàllu biir réew mi maanaam moom moo nar a organiser élection yi wote yi yaaw seetal Mouhamadou Makhtar Cissé fa remplacé Sidiki Kaba si jëruñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi yéen a kaay bi ne moom nag liggéeykat la de révélation yéen a kaay na ko waaye te déewut njaaxaanaay Makhtar Cissé fa far APR benn bokk yaakaar ku nekk gis na ni mu leen fi doon jàppale gars yi nag li ñu doon xaar mooy élection ñu dénk ko koo xam ne mësta faral kenn benn parti politique nag waaye loolu amut laneen lu am ci gouvernement bu bees bi mooy ne Mankeur Ndiaye delluwaat na ca jëruñ ji ñu dénk wàllu bitim réew nag mooy na njiitaram Macky Sall fa dàq kaj ji mboolem ministre boo xam ne xaritu Amadou Ba nga woon jege ñaaleem l'évidence yi kaay na man kay faay laajte ndax njiiti mi bëgg na Amadou Ba gagné élection yi ah yow fa ngay xool Thérèse Faye bi nga xam ne yàkk na fi Amadou Ba loo xam ne weñ wu ci dal dee Mame Mbaye Niang moom kuy bañ Amadou Ba moom ngay dimbale moom fa ko nëbbul wax na ko ba ñëpp dégg ne du ko jàppale te fañ koy mbuqi ci gàttal bokk na ci Lat Diop Macky football na ko Doudou Ka Macky fa koo dàq Cheikh Oumar Anne fañ koo génne ca biti Samba Sy moom fañ koo tiire football mu génn terrain bi Ismaïla Madior Fall nag mooy directeur cabinet njiit mi les si ko a kaay ne ah jege ñaale Amadou Baye Macky fale na dàq génne leen ci gouvernement bi kon daal fa ñoo seetlu ne njiit mi moom fay gën di bàyyi di wan ginnaaw Amadou Ba mi fi nekkoon njiiti jëwrinam képp ku farak Amadou Ba falaa a kaay bi ne li ci gën a yi Fatou Diané moom njiiti réew mi fa koo kaj ji dàq ci bés yi di leen sargal ci nag muy 8 mars ni ki démb libération ne bu leen ko reetaan nag ndax am na keneen ku jekk ci ñu reetaan ko te mooy jëwriñ li dénk wàllu tàggat yaram moom jamono jii ma nga ci réewum Ghana jiite délégation jongantekat yu réewum Sénégal yi war a bokk ci Jeux africains ya léegi moom football nañ ko kaj ji kooku léegi nu muy ñibsee ndaw gàcce jëwriñ ji ñuy wax Samba si moom xam nga lan moo tax Macky football ko dàq xam nga fa fee waxoon ne moom d'accordut ñim dàq jarul mu leen di naqari ñim fal bees tamit 34 ministres yi jarul ñuy gala yaabe ndax yëf fa yàggut gouvernement bi ay fan la ay fan matu sax weer buy élection yi jeex fa ñuy fori ñoom ñëpp turbine yéen a kaay ne waaye bala ñoo fori ñoom 34 ministres yooyu xam nga lan mooy seen mission fa mel ne daal fa ñuy séddoo gato sénégalais yi lekk ci gato bi ba suur balaa seen nguur a jeex le quotidien yéen a kaay na njiit kay fa tal njiiti réew mi jéem na fee bloqué wote yi ngir mu bañ a am balaa la deux terewut pexe yi mu def yëpp yëf yi mujjuta sotti juróom-ñaari attekade fa ñu fipp taxaw ca kanamam na ko xalaa mandir bàjjo xalaa xalaa doo fi jaar li nga bëgg du am ba tey mu ngi nii wote yi mujj naa am libération ne waaye hée def leen dànk de Karim Wade waa PDS yi bàyyee guñ de ñoo yeneen candidat yi nga xam ne fañ leen a sepp ci parrainage bi fa ñoo wax ne altine bi di ñëw fa ñu dugal recours bataaxal kalaama ca cour suprême ngir ñu arrêté yëf yi bañ a amal wote bi le 24 mars ñoo wax ne a bokk bokk Bougane Gueye Dany ne man mii di wax ak yéen maag ñoo yem maanaam man parrainage bi moo tax bokk ma ci wote yi waaye ànd ak loolu pexe yooyu ngeen di nas Karim Wade ak PDS ak mel ni moom man ànduma ci tey ànduma ci ëllëg nañ bàyyi sénégalais wote 24 mars coow li jeex intérêt réew mi kenn du ko yemale ak sa intérêt bopp l'observateur mel ni ko daan ko hëy Bougane bàyyi leen ñu dem ca cour suprême loolu ñu bëgg mënta nekk suñ demee cour suprême it duñ ku naan ko man kay li ma bëgg benn bokk yaakaar nguur a njiitëram Macky ñu abal ñu Zahra Iyane Thiam mel ni ku naan ko yow faxal bañ abal Ba man gisuma luy tax ba du gañ a yi kon ñun demaguñ de ma ko waxee ci source a laas yéen na ko faala ci yokkal Amadou Ba woolu na directoire de campagne bi ni ki samedi lépp ngir waajal wate aar sunu élection ne ñun nag fi nii bàyyi nañ politiciens yi war nañ leen gannaaw ndax xeex bi ñu doon xeex ñun moo ñu jàpp datu élection yi te fi nii jàpp nañ ko kon ñun suñ liggéey jeex na ña ko waxee ci laas yéen a kaay naan bëgguñu watee am la 24 fañ ko war a arrêté waaye yéen kaay bi ne Habib Sy tamit doxalinam jaaxalul leen ah yow Habib Sy jegeñaale Ousmane Sonko la waa Pastef bi ñoo ko parrainé ñu dégg ko muy wax naan 24 mars bi d'accord ci ngir ñu wate ci yéen kaay bi ne nag faay laajte est-ce ne Habib Sy mii fa nax Ousmane Sonko rek source a yéen kaay na ko voilà Ousmane Sonko moomu ngay wax nag ak Bassirou Diomaye Faye ay waxtuy néew moo des ñu a journal su ko defee altine talaata Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ak mboolem ñu ñu tëj kaso ci wàllu politique ci fitna ji fi amoon ñoom ñëpp fa ñu génn kaso kon yàggatu dara ay waxtu rek a ci des bés bi yéene na fukki fan ak ñaar am ci campagne bi waaye candidat yi weeru koor yi nar cee campagne dana métti de Saliou Keita DG bu CICES ne faa di wax dëgg gis ngeen candidat yi parewuñ dugg ci campagne waxuma ak élection ma ko waxee ca wa am Tambacounda wala a dem quinze heures gannaaw tusubaar ne yaa ngi génnee askanu ci ab mitin loolu dana jafe de est hmm, waa ma ne yéen a ko sombi daal yéen koy naan yéen doon sàkk bésu wote njiitëram Macky Sall jàpp na bésu wote weeru koor ak tam xarita ci yem campagne rek de atay ci guddi la campagne bi tàmbali kon caaxaan faaxe lenn daal xam naa ko ci mooy candidat bu ci amul ay militants yoo xam ne fañ laa gëm dëgg dëgg picc du la topp de ci bëccëgu weeru koor yi ñi gëm seen candidat nag muy taw muy naaj weeru koor lu dul weeru koor su seen candidat bi génne ñu topp ko ndax fa leen koy jaral donte dana métti